ñun nag xam ne kenn mëntu jublu Serigne Touba te wanoo ginnaaw àdduna fi ñu nii Serigne Touba defal nañu loo xam ne lott nañ ci fay lott nañ ci sant ko waaye nag nañu gedd ji te jublu sëriñ bi wan ko ne ko hubbi wa wuddi wa ridwaani wa mahamadati li man xabaani bi ma xat faa xamas nit bu la defalee loo xam ne mënuloo ko sa bopp nga mel ni ku yoroon kooku su ndox as kooku kooku su ndox xam nga bariwul war cee naan war cee sangu war cee fóot war cee togg te di ko soxlawaat bis bu set te ndox amatoo ko fenn lu dul genn kooku su ndox lañ la wàccaale ci kaw suuf nga ñëw fekk géej ne ko dama bëgg teg yow ndax ndox mii dinaa ko soxlu bis bu set te li ma yor mënul dara mu nangul la ko su njébbal yi ñu sëriñ bi nangul boole ñoo sëñ Muntaxa loolu lay firi mu boole ñoo ndox ne ñu fépp fu ndox am na ngeen xam ne kii de maa ko nangul njëbbalam kon faj leen aajoom lii la dong ànd kon nag bu ñu wëlbatikoo di bëgg dara wala ñuy ñuy ñuy xemmeem dara xamuñu suñu bopp sëñ bi nag dafa ma sàkk woon ne ma nag dafa bëgg li ay kàddu yu cant ma ñeewante ko ci rek euh, ba ba ba ba ñaan ko ne ko yàgg nga ñoo soññ soññ yoo xam ne doy na fi ñu toll ni ñaari murit yu dajale ñëw sax seen liggéey. lu liggéey bi mel nii lu xeebu sax ci ci ñoom sëriñ bi daf leen koy réyalal fonkal leen ko jàkkaarloo ñoom it soññ leen du ci tàyyi mukk waaye sëñ Tuubaa moo ko jaral yàlla na ko yàlla fay yàlla yàlla suñu borom guddal aw fanam lool def ci xar baax te dimbali nu nag nun suñu xol yi buñ ci fat kenn nañ ko yam nañ xam ne sëñ Tuubaa ko moom bu ñu gindikoo leneen lu mu mën a doon rek xamuñu suñu bopp lii daal dama ko ko ñaanoon mu may ma ko Euh, ma waxaale ko dong yëpp ndax keroog ci leetu xadar gi loolu laa ko wax ne ko fajar gi dafa bëggoon ñëwaat soññ dong yi ma ne ko Mbàkke la ñu daan soññ démb ak bërki démb suñ ko fàttalikoo rek war nañoo mën a dem te wax digg yàlla àdduna sépp la soxla njabootu sëñ Tuubaa yi dongo yi lislaam ji nit àdduna yi sax bu ñu jaaxlee sëñ bi moo leen di dimbali kon yal nañu ko yàlla fayal lii rek laa ne woon naa ko jot noonu rek la. nee na alhamdulilahi rabil alamin nee na moom day noonu dong la. cant yi nag mooy lima ma ci ma ci jiital mooy sant la leen sant sant la sant sant leen sant sant la leen yéen dama leen di sant dama leen di santal dama leen di santal su borom mi nu boole sëriñ bi di leen santal sëriñ bi waaw maanaam maanaam li ma bëgg a xam mooy dama leen di santale loolu laa bëgg a wax dama leen di santale dégg nga wax bi santale yéen lay santale yéen war a sant sëñ bi nee na nee na kàddu yi li mu ci jublu kàddu yi cant yi nun la bëgg santale nun daf noo bëgg santale ndax nun danoo war a sant yéen laa bëgg a sa sa seen cant gi ngeen gi leen war moom laa moom moo tax ma fekk ma ma jotaay bii ma fekk seen bëgg leen sant waaw. nee na sunu cant gi nga xamante ne daf noo war li tax mu ñëw fekke si jotaay bii mooy daf noo bëgg santale ci cant moo tax mu catul njàng mi fekke ko ngir santale ñu ci loolu. ngeen xam ne yéen sant rek leen war. ñu gën a xam ne kon ñun sant rek ñu war. liggéey sëñ Tuubaa rek ndax lii moom liggéey sëñ Tuubaa rek la. kenn mënu koo may sa bopp kenn mënu koo may kenn. waaye nee na kenn mënu koo may sa bopp kenn mënu koo may kenn. moom li mooy li ngeen am nii. nee na mooy li nu am nii ñun waa Hizbut Tarqiyyah. tawfeex ju la. nee na tawfeex ju rëy la. saxaabatu rasul tawfeex ju rëy rek moo leen mayoon la ñu am. saxaabatu rasul tawfeex ju rëy rek moo leen mayoon la ñu am. li ngeen am tawfeex ju rëy rek leen ko am tawfeex ju rëy rek moo nu ko may. mooy jooju tawfeex nag mooy liggéeyu sëñ Tuubaa loolu rek laa ci bëggoon a cant googu rek laa la ñu bëggoon a wan. nee na rek la ñu bëggoon a di leen di di leen di leen nag di leen suñu borom mi ne boole sëriñ bi di leen sant bi minu leen minu leen minu leen wan. mais di ñu santale suñu borom ci sëriñ bi waaye di ñu sant di bi mi nga xam ne moo moo moo moo nu ko wan. damay sant yàlla. nen day eh, sant yàlla. ci yéen. ci nun ci yéen ñii. nen day sant yàlla ci nun ñii. moom mënu booleeg sëriñ bi. moom mënu booleeg sëriñ bi. di sant sëriñ bi nag. di sant sëriñ bi nag. ci wan gii mu leen mënu leen wan. ci wan gi nga xam ne wan nañu ko ñun moom mii ak moom mii dimbali gum ñu womat ba indi ji moom. mooy kon eh, ñaari cant yi. ren loolu mooy ñaari cant yi. waaw sant nag di sant yéen seen bopp. di nu sant nag ñun ci bopp. am ngeen ci wàll. nee na am nañ ci wàll. ndax gàllankoor yi bari na lool. ndax gàllankoor yi bari na lool. ndog yi bari na lool. ndog yi bari na lool. caaxaan yi bari na lool. caaxaan yi bari na lool. fen yi bari na lool. fen yi fen yi nee na bari na lool. ngeen am lii ngeen am. nu am lii nu am. waaye ngeen ngeen xam ko. waaye ñun nañ ko xam. def ci seen kéemtalaay kattan. def ci suñu kéemtalaay kattan. ci kàttan yoon wa ci dog yoon wi. loolu moom laa leen si sant yéen itam. nee na loolu la ñuy sante ñun itam. kon cant yaa ngoo. kon cant yaa ngoo. <laughs> jërëjëf Mbacke. ngeen war a sant mu ànd ak yéen di leen santale. danoo war a sant mu ànd ak ñun di santale. di sant nag sëriñ bi. di sant nag sëriñ bi. ci yéen. ci ñun. di leen sant yéen seen bopp nag. di nu sant ñun itam ci suñu bopp nag. am ngeen ci wàll. ndax am nañ ci wàll. muy tawfeex ju rëy. jërëjëf ñun ñëpp tàllal fu ne ak ñu nekk ci ëtt bi ñëpp te xam ne sëriñ bi. <laughs> nee na am na lu ma dolli woon loo xam ne dafa am lu mu fàttali. waaw nee na mu koy fàttaliwaat. moom dana war a jéem jéem jéem di xam sëriñ bi. neen dañoo war a jéem di xam sëriñ bi. faw dañ ciy dëkk faw. di jéem di jéem di jéem di ko dund. di jéem di jéem di jéem di ko dund. nañ ci dëkk nañ ci dëkk faw. nañ ci dëkk faw. loo gën a loo a xam sëriñ bi. loo gën a xam sëriñ bi. gën a xam yàlla. gën loo gën a dund sëriñ bi. loo gën a dund sëriñ bi. gën a gën a nekk ci li yàlla bëgg. gën a nekk ci li yàlla bëgg. la ko gënal. la ko gënal moom yàlla. Ah, noonu rek la demee jërëjëf na ñëpp tàllal te xam ne sëriñ bi jox nañu ay teraanga yoo xam ne yaatu na lool kon eh, ñi koy ñi koy taxaw ñoom sëñ Ahmadou Sidi Samb nañ defar raxasu yéeg yëpp rek ñu sant santale ko moom itam waaw jërëjëf na ñëpp tàllal. ñoom yooyu nag. Ah. waaw nee na ñam yooyu nag lépp rek ci taw feex la rek waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall ñoo ko fi indi. nee na moom mu jox ñu ko jërëjëf ah ñu nee na waa kër ma waa kër maam Cheikh Ibrahima ñoo ko ko indil moom mu jox ñu ko waaw te daa nga yaatu la nag na xoolal bu fi kenn yëf def fii fi njaayeen na ñëpp tàllal seen loxo yàlla na fi yàgg te wér bàkk nee na suñu mbokkum taalibe bu ñu wax Mouhamadou Diop nag nañ ko gën a ñaanal mu gën a dolli ko tawfeex ndax moo indi xéewal yi jërëjëf Mbacke ba ñëpp tàllal te te nee ci lu mel nii rek la dëkk waaw ci loolu rek la dëkk na ñëpp tàllal jërëjëf amin